len leen bëgg naa leen bàyyi ni nga am ah nak man ma ngi am jam tay nak na xamna ni ma ngi toog ak nga xamanteni moy Mansour mbay sa dugg si bi tay amna kuma jox de. kala la jox. ba du gore a caam. du gore a caam. El Hadj du El sek ba du ki may fara deg fani ki mbay pex moma cey sa gemmi pex taxawal sax ma ma jakar ak yow wat ndaysan dañuy defaru. waw mbay pex am nga fit mbay pex lan la wo waxe mu sol grand bobu yu bëri yo mi melni supame waxuma ci pomé sax mom mo raw ci pomé buñu waxee yow bu go dul fu dara xew nga yogas yogosi fa mom de deureum rek lay wut essay bëgg nga kasara job am rek nga na fa yar sa grand bobu bëgg nga deureum mbay pex togal mbay pex lan la barki demo ndjay la cheikh amar wo dom ji fekk na mbay pex da don nelaw ci mbay waye gis nga ba bamu yew ba dom ji nako Cheikh amad don na la woo jour bobu la gëna gis dom ja. may def fu amul deureum bugg fa dara. dara alal la bëgg moo tax kasa bi instant bi ni dafa bëgg mu am coronavirus bi lu ci sa yoon may pex lan la yow dal ni rek ni na coronavirus bi amna nga na amu fi ndax lan da nga bëgg dem Touba ñom sax xam nañ ne am na fi. wax ak yow sax erreur la ndax damay li may perte am na feneen fu ma koy jariñee may pex ndax yow wax ak yow damay perte poids damay perte énergie daal keneen ki moom mu waxee moo naan barki laa ilaha illallah coronavirus amu fi mbaa du kii ba doomu nday Modou Lo salbe ndom waaye ko muy mel ni fasu course noonu waxuma la fasu course sax bu ñu waxee moo naan dina ko ci Cheikh Ahmadou Bamba ba beure nak man digi nim mu koy ragojoo ni mo a metti ni muy di waxale ni jom la pan jom la pan mu jom dal salbe ndom ne nga morloo dañ koy daan mu daan salbe ndom kan bi tamit dañuy jël kan bi ndaysan ñu perte ko bo boo sax mom mo tax ba ñu perte ya- ko nen yan doon jaay yëmbal yépp jënd nako cey nen ya newoon yëmbal cey salbe ngom gi ginaar ginaar bëf nen ya sax jël na len bala nen ya di waw lay jël na ni saraxé kan bi mënuñu ko jël um nañu salbe doom tëjal sa gémmiñ salbe yow tamit man dama man dal man dekk bi yemna ay li la la adada corona corona corona corona amna fi balen ñu yeen li ngeen wara def moy lan ngeen ñaanal ñu waaye yow do wax lu am salbe yow lu am mom yow lu am da dëddal ak yow mom da dem ne nga jaar ni yow lu am rek ngay wax loolu la leerul tëjal sa gémmiñ noppil ah galo nag franchement sama xol bi tey naqari na trop waaye lu naqari sa xol oh. yow sa xol dafa war a di sedd waroo di mer non non tey sama xol bi dafa ma metti xaw ma lan la day jékki-jékki di vivre nan lu war a loolu parce que manuel garab yu bon yi nga xamante ni moom lañ ñuy indil si dëkk bi en plus suñu feebar bi ñu yor nga xam mënuñu si dara ñuy yokk ay garab yu fe mais xanaa dañoo bëgg ray bëgg dañu bëgg ñu ray rek yam ci dé dañu bëgg ray ray bu ñaaw ci sénégalais médicament yu bon yi nga xamantani baaxul ñeen jël diko ko han ah ko jox ñuy naan barki que ndjay lolo looloo do do mu wëli mata ji paracétamol la demoon jënd di nek ndekete paracétamol bo baaxul ñu ci bind benen kalaar bo démé sa délai ba dafa passé waaye waxuma la délai bu pa mën nañ ci bind délai bu bees tax cey nan la bi exprimer en en mode xawma lan ak lan man dal man dal dama waru de len ñuy jox garab yu bax pre yeen ay sacc ngeen ah lu ton ci ay ñaar témer million ñu indi ko ci ay garab li moy lan ah seen garab yi nga xamanteni baxul dara baxul gudi baxul betek galo li dafa metti corona bi mi ngi ni en plus ben way ta waji lima gëna met dafa daw mu taxone dañ koy ray de ray ni ngay ray dañ koy tecc ci kasso bi wala ñu door ko bala mo dugg dinañ ko door door daal dañ leen wara a par kat galo nga japp ma japp nga japp ma eh. japp no ki sama tànn par kat xajul ci mom bay waaw yow nak galo waaw yow da nga da nga mëna yek sa bop waaw <laughs> te yow do dara man xamna lool loolu ndax bët ki demoon jaay damaa jàpp ak yow ci ruq waaw bama neela ya nee la ah waxoo da nga mi ndol nga am nga yaram la si nga mais tappañ nga loolu moom dama la koy soññu. ba li ma humilier. du ma la humilier mais damay wax ak yow. waa nag galo loolu métti na ma trop waaye nag buñ paree ci loolu galo. waaw ah nag sunu réew mi daa am ñu may gërëm. Mm-hmm. Waly Seck dama koy gërëm. ki ñuy xas barki demoon Ndiaye muy soxna Aida dañ koy gërëm. bu ñu paree ci loolu. waaw ah Youssou Madji Guène dañ koy gërëm. ak a nay waaye tey moom jour. non def na déedéet def na lu nice. galo hmm. ñoo ñi nak ma la limal sadio mané sax dama koy gërëm moom mané la ilaha illallah ñom day jël nañ seen copar ya newoon ci banque ya duggal ko ci corona bi kon xam nga li dafa sérieux kon def na waree fam de ah buñ ko deful xam emmanuel macron mom tëj na fep mom nak day fay mom moy fay courant mo lay fayal ndox mom loyer sax mo la koy fayal nga dëkk ndeysaan waaye ñun tamit ah tuar fa kala macha allah Hmm? ay jàmbaar ngeen waaw ku nekk nag jël nga say million dugal ci corona bi yaa ngi jàppale population bi waaw waaw loolu nag dañ leen ciy gërëm waaw bu leen kenn gërëmu ñun dañ leen di gërëm waa Ngéwél gi info dañ leen di gërëm parce que loolu dafa rafet waaw lii mooy yoon sa peuple bu nekkee ci problème da koy jàppale waaye doo toog ni Selbé Ndom wala ni Mbaye Pekh yor sa trois pièces fune nga yogas yogas fa bala ca ngan cheikh amar mang li ngeureum cheikh am mbay peex man dal man wax ak yow da yak sama énergie ci mbay mbay peex yow wax ak yow jaru ko te matul nit nak de matul nit bokoy dor muy dede ni sekku la mel sek sek mo wede rek wede wedejet seko ko tane wede wedejet waye bëgguk dërëm ba mbay man nak amna len len lima jaxal sa wax bi sa discours bi fi discours lepp deguma ci Ela Diouf lu waral lolu koku da ñak jom tey mom ba jom di am da xey gont ba du wu ko fañ koy distribuer ah, sax samedi yow yaangi ngi yow yaangi ngi ay pinj mi yow yaangi boot yi gëna bon man dama ragal sax poste ba et que foqul poche yëpp a faq moom ya amul dara dërëm yoratu ko kon ki kon ki yow tamit yow yow ku bon nga yow ku yes nga kon ki soxla na ay normalement mm. dañ la wara deg yow rew mi fuñ tok dañ la wara deg ndax 2002 lañ fi def xam nañ ko waye da la jariñul mi ngi fi tege lam fi def mi ngi fi waaw te nag kaam xamal leen de moom de ay maillot rek lay sol nag moom moom bu ko waal sekk di waaye sax maillot lay sol. ndeysaan ndeysaan tàq ba xeeñ. di naan ko di xeeñ parfum bu neex. Eh, eh, eh, yaa ñàkk jom cey hmm, baaxoo. waaye nag duñ def lu di leen gërëm waa Nguel gi info ñu ngi leen di gërëm ci li nga xamante ni ah yéen a ngi jàppale waa réew mi waaw doyul ñëw leen doyul waaw ndax ku ne xam na ni corona bi yéem na àdduna yéem na ñëpp. waaw kon nag duñ def lu di leen jaajëfal waaw di leen jox seen dig daje ci beneen émission ngéwél gi info waaw ñoo ngi leen di jaajëfal bu wër